leader yi. non mais tudd nga fi ku ci mel ni Cheikh Bamba léegi. da ngeen ànd coalition. non mais fi léegi ku mel ni Cheikh Bamba. ci am bi da am une idée lii laa fay wut. Mhm. wala lii dañ lii daal moom bu ma ko amul. nga teg ci ku ci mel ni Cheikh Bamba Dièye. waaw waaw léegi moo xaar moo xat ko mu leer. ci mel ni Cheikh Bamba Dièye. a claqué la porte de Yewwi Askan Wi. ba ñu ko tabbulee ci in bi ko investirulee. Uh-huh. pour euh, locales yi mairie bu Saint-Louis. alors loolu man je dis que sa gis-gis la yow xam nga biraan lan moo am solo ci ànd ñiy ànd xam li leen boole te Yewwi Askan bi dafa nekkoon une coalition boo xamante ne bi dafa nekkoon espoir u Sénégal. moom yàggu leen fa yàqu leen. waaw xam nga lu tax ñun képp ku ñuy àndal dafa am lu ñuy àndee ñun ku ñu àndal rek réew mi tax ñu ànd ak yow. ànduñu ak kenn pour suñu propre intérêt Cheikh Bamba du genre nit boobu parce que amatul lu muy prouver ci biir réewu Sénégal. amul lu muy prouver ak am lu muy prouver ak am lu muy prouver parce bi gën a mag mu am ko mooy maire bu Saint-Louis jiite na ko. 5 ans def ci li mu ci jiite na ko 5 ans. li daf mm-hmm. ko jiite 5 mm-hmm. ans 2009. Mm-hmm. la jiite maire bu Saint-Louis. dëgg la ba 2014. ñu dem élection. boobu mu ngi ci woon mu ngi woon ci biir gouvernement bi. gouvernement ma Sall. alternance 2012 mu dugg ci biir gouvernement président Macky Sall xawoon na tëkku ay ministère am ku perte sa localité dama lay dàq ñu dem 2014 ñu gagné ko. avant ñu naan prip. Mm-hmm. mu njëkkantu ni bàyyi naa ci de gouvernement. non boobu fekk na pour bàyyi. yàgg na boobu mais dafa xaar ba ñu. parce que avant gis nga ci biir moom li ma lay wax rek bi daan gis nga ànd bu Cheikh Bamba ànd ak nit. du pour intérêt askanu Sénégal moo tax mu ànd ak nit gis nga bi muy ànd ak président Macky Sall du woon pour intérêt moom askanu Sénégal moo taxoon mu ànd ak président Macky ci biir ànd bi Cheikh Bamba li mu mën di ko def mooy liggéeyal askan bi ministère bu ñu ko fi mës a jox lam ca war a def def na ko ba mat sëkk mais gis nga bu fekkee da ngay ànd ak nit te réew mi tax leen di ànd nga bëgg yow bëgg doon kilifa bi nga xam ne yow ci sa waaw la ñëpp di wéy Cheikh Bamba du fonctionner noonu Cheikh Bamba Dièye na fonctionne pas comme ça moom ay principe am doomu aadama du ko dindi que ngay président de la république ak ngay chef de l'opposition ak koo mënti doon moom ay principe doomu aadama du ko dindi parce que réew mi moo ko tax di liggéey lu mu sonn ak lu mu daw rek réew mi la Cheikh Bamba kan moo mën a wax xeex boo xam ne xeexal nañ ko askanu Sénégal te doo ci gis Cheikh Bamba Dièye amul bu mës am parce que loolu du objectif am objectif am mooy fexe ba réewu Sénégal nekk ci jàmm ci loolu lay dox ci loolu lay wax Cheikh Bamba bi mu nekkee président Macky Sall di liggéey liggéeye leen boole woon mais du woon intérêt boppam dafa dafa perte mairie Ndar génn mais avant muy perte mairie Ndar boobu fekk na moom Macky neexootuñu parce que li mu gëm bëgg ko doxalee ci réew mi ku ko ko xañ moom mu teg la fi ni tegee poste intéressé wu ko de mais na Sénégal nekk ci kanam ànd bu muy ànd ak nit principe lay doon bu ca principe yooyu bennoo Bokk Yaakaar Benno bon local yi 2014 euh, ñu bàyyi leen moom mu damal boppam Mansour Faye damal boppam Mansour Faye gañam dëgg la mu bàyyi gouvernement bi. waaw mais xam nga du lépp la li la ñuy mën di expliquer ci ay plateau. ok yow Cheikh Bamba ma ñëwaat tuuti rek ci par rapport ak ànd yi ngay wax parce que bu Macky sàll man loolu laa ci mun a wax ma ñëw ci li nga xam ne mooy yeewi askan bi damay dellu si waat rek di la ko wax. parce que loolu la ñu gëm mun ci ci loolu la ñuy dox mooy képp ku ñu mën ci àndal ñun dafa am lu ñuy àndee ak doomu aadama mooy intérêt wu Sénégal. waaw te ay nit bu ñuy ànd dara animé ba tax ñuy ànd xam nga yow tey opposition Yewwi Askan Wi dafa nekkoon une opposition boo xam ni dafa doon yaaka dafa nekkoon yaakaaru Sénégal. yaakaaru Sénégal la woon mais bu fekkee la leen boole yow ñun FSD/BJ ak Cheikh Bamba Dièye la ñu boole woon ci opposition buñ ko ca noppee gis dañuy delluwaat ca la ñu nekkoon parce que ñun li ñu nekk dafa dañ ko gëm muy lu dëggu. di doon loo xamante ne bi doomu aadama mënuñu ci dévier dañ ciy delluwaat te du tere ba tey jii dañuy def suñu bopp un opposant hmm. ñun opposition la ñu bokk. mais vous vous faites cavalier seul daal maanaam. fi mu toll nii moom. waaw parce que xam nga lu tax ñun dañuy yàkkamti moo tax dañuy dox ndànk gis nga dëgg boo ci nekkee bul ci ragal a wéet xam nga doyen léegi mu ngi def ay témoignages yu am solo ci Cheikh Bamba da nga jiite émission di ko def mais li doyen wax da ngay wax lu ni mel. Hmm. Sénégalais yi dañuy wax lu ni mel parce que loolu moo nekk. xam nga kiy tricher dina juum ci la muy tricher mais ki liy def lu jub munta juum parce que la muy def gëm-gëm la Cheikh Bamba Dièye li muy def ci askanu Sénégal daf ko gëm te daf dañu gëm ne loolu noonu noonu la Sénégal war a doxee. Hmm. njiit il faut d'abord nga xam yow lan la réew mi soxla nga di ci taxaw. njiit il faut nga doon koo xam ne say waxi démb ak say jëfi tey dañu war di méngoo njiit danga war a doon koo xamante ne dangay am yërmaande ci askan bi. njiit da nga war a doon koo xamante ne da ngay bàyyi xel réew mi te ñun suñuy njiit du ñu doxalee noonu te pourtant bu fal jotee ñun ñooy fal mais bu ñu xasee ba fal dañuy jàppee ñoo xamante ne bi tekkiwuñu dara te kon dañuy faral di wax ne génn golo su la sàngalul sa awra dàqalu la weñ daggal sànni. moo tax képp ku ñu mënti àndal. dinañu ànd ak yow ci ngor bu ñu ko noppee gis dinañ génn toog mais doo gis benn déclaration. wala point de presse comme ni nga ko waxee léegi dañuy génn def point de presse wax nangam yow ba tey xam nga lan moo génne Cheikh Bamba Dièye opposition dangay xalaat dangay xalaat ni yeewi en tout li ma seetlu dama lay laaj li ma seetlu li ma seetlu nekkuma ci biir yeewi nekkuma au cœur des décisions mhm. des prises de décision mais mhm. li ñu seetlu mooy mhm. ba ñuy tabb liste liste pour les élections locales Cheikh Bamba dafa yóotu woon maire bu Saint-Louis bëggoon ñu tabaat ko loolu nekkul décision bi ñu bi waa yeewi jël jamono yi ku doon defar liste yi Khalifa Ababacar Sall moo doon mhm. defar liste yi mhm. Aba Mbaye la tabboon Saint-Louis mhm. mais loolu naqari na leen mais du ñu mën a neex bi ngeen génnee yéen ak euh, Moustapha Guirassy yëkkatiwu leen ay kàddu ay kàddu ci yu mel nan ci euh, ni ñu tabbee waaw mais dinañ la ko wax mais dama ne man li ma la dama la wax dafa simple dama la ne ndax Cheikh Bamba Dièye bi mu génnee opposition gis nga ko benn yoon bu mu génn def déclaration ne dama bëggoon nekk meeru Ndar waa opposition xañ ma ko ma génn du ko waxee noonu te du ko defee noonu parce que la leen boole woon bu ko ca noppee gis day dem toog nekk ca la mu nekkoon moom kooku mooy Cheikh Bamba Dièye Sénégal rek moo ko ñor ak nan la ñu mën a def ba réew mi nekk ci jàmm doomu sénégalais yi gis seen bopp ci réew mi parce que sénégalais yi sonn nañu rawatina suñu njaboot gi tey ji yaa ngi gis ñu ngi wax waxu gaal gi suñu doom yi di dem di dem di dem di dee ci àll bi mais loolu dafa métti d'accord altina waaw d'accord naa ak yow